léegi bu leen ñëw yow ma développé après Babacar ma am na ñoo xam waa waa waa kii bi damaa bëgg nag balaa Babacar def live ngeen avancé contact ndax bu bu def live contact bi gën a mën a yéeg gars yi gars yi sénégalais yi gën koo mën a gis ñu bañ a ñu Karamba bañ a naxati ñu jëm Seydina Muhammad abonné leen si laa nekk abonné loolu du dara su ngeen paree ñu après Babacar defee naa dugg ci live Babacar ñu gën a leeral après ñu ngi audio yi Cheikh maa ngi leen di ziare ñoom yéen a ngi may dégg. mi ngi lay dégg waaw. waaw yéen a ngi may dégg Cheikh maa ngi ziar maa ngi ziar maa ngi ziar. mi ngi lay ziar Dior ah Cheikh Babacar. waaw gis ngeen gis ngeen Karamba Karamba man xam naa ko bu baax a baax Karamba moom ñoom Madani mu ndaw ñoo doon ànd. Cheikh mi xam na mu ndaw baax baax baax baax. gis nga. gis nga Karamba dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. yéen ñi dëkk Mbour bu leen gis Karamba bu leen bëggee gis Karamba guddi bu guddee dem ne rond-point Saint-Louis benn benn ouverture bu ñuy wax DHL et de RDC day mande ba langi ba tànk yi di lang déglu leen bu baax a baax gis nga madaani mu ndaw madaani mu ndaw mu ndaw Cheikh Banaana bi doon dem gaal di ku dëkk Mbour boo dul moo kuy caacaw caacaw mu mag mag Cheikh Banana mi escorté gis nga gis nga gis nga euh, Cheikh Banana ak caacaw mhm. mhm. na si Cheikh Banana gaalu caacaw loolu dugg géej mook mhm. moom mooy garde moom mooy garde karamba mooy garde karamba gis nga karamba waxuma la ndax xanaa ndax bu amee benn yoon rawante balaa moo amaat rawante mën naa toog cinq ans te mosoo faa gis karamba kon karamba xamul sar day nax sénégalais yi yéen si boppam yéen yéen a billaahi garabaa ko si ne sali laax yéen ñu xam sali di dem RDC billaahi boo la wax fekkee guddi yi xoolal eh, li ñaaw mu ngi ñaaw ñaaw ñaaw parce que garabaa boo di ma di te mosoo leen dégg ma saaga kenn ci TikTok bi mosoo dégg man saaga moo def live di saaga ndey teer man kenn ma saaga joor joor yéen a koy dégg waaw joor tuddi ma àggali tuddi joor ma àggali gis may jaay mii nii almeria la ma fekk jour weeru koor du ma ko fàtte mukk maag seen bi ñu billaahi wal kitaab couscous rek moo may wax jeex mii nii jël numéro karamba jël mm-hmm. may envoyé ko karamba karamba oo sama kanam mm-hmm. bul wax may del billaahi wallaahi taalaahi mm-hmm. jour weer weeru koor laa wax weeru koor maa ngi Almeria ñuy togg spaghetti spaghetti seetu togg spaghetti may togg soos billahi wal kitaabi mu naan mbay mii sama kanam damaa bëgg a dem kana damaa bëgg a dem feneen sax euh, fii gars yi dem. ma tuuti Ibra <laughs> Waly Ibra Waly dama lay bañ a dugal ma wax loo xamante ni mën nañoo jaxase man ak yow moo tax bëgguma laa jël sama rakk nga vidéo di défendre Karamba bugguma laa jël nga am noo waxee ak man ma dépassé la kon dina am lu yàq sama digg suñu famille bugguma laa jël nga wàññi gis naa la bu baax a baax mais su di nga di jéem a défendre Karamba moo xam loo xamante ni après du ko jar day ñaaw ok demal demal